asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax moo bëgg a indi tuuti leeral rek ci benn xadis boo xam ne waxoon nañ ko fii ci wàllu ibnu taymiya ak muhammad ibnu abdul wahab ne moom lañ gëm am mbokk moo xam ne dafa jógoon di weddi loolu di wane ne xadis bi comme wérul ñoom gëmuñu ko gëmuñu ko waaw du seen pas-pas téere bi ma indi mooy bayaanu talbisil jahmiya ibnu taymiya moo ko taalif di ci tontu yi ci téere bi mu bindoon tuddee ko asaasu taqdis boo demee ci jukkib ñetteel bi <coughs> ibnu taymiya day indi xadis bi nga xam ne moom la ibnu abdul wahab mii taalibeem di surgaam di dongaam di jëwrinam muhammad ibnu abdul wahab nga xam ibnu taymiya rek la fonk moom dafa répété waat même li im tey wax ci téere bi moom la répété waat ca téereem bële di usulul iman ci xadis ba nga xam ne waxoon na ne ahmad solo na ko ak ak kii mooy xadis bi ngeen xam ne indi woon nañ ko fi moom la ñuy indiwaat maanaam bu ñu xoolee xadis booba la ca nekk biñ ko indee fii am na mbokk mu taxaw daal ne lii du sunu pas-pas léegi nag ñu dem ci im téemee ba xam lan la wax ak ki nga xam ne moom mooy taxqiq téere bi te mooy ahmad muaz xaqi lan la wax moom itam te muy ñoom ñëpp di di bokk ci wahabiye yi muhaqiqu wahabiye yi la bokk bu ñu ñëwee ci téere bi bayaanu talbiisil jahmiya ci page deux cent quarante im tey mi dafa indi xadis bi ak sanadam yépp mais mi ngi ko jëlee ci Ousmane Ibn Saïd mi nga xam mooy daara mi la wax ne moom rotal na xadis bi moom Ibn Taymiya mu sukkandiku ci indi sanad bi yëpp ba mu yegg daal ne qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha fawqa arshihi fawqa samawatihi fawqa ardihi misla alqubbati wa ashaara annabi bi yadihi misla alqubbati wa innahu la yaitu bihi dégg nga atita rahli bi raaki bi loolu waxoon nañ ko keroog mooy nañu saxal ne yàlla bu toogee ci arasam aras ga dafay def kii comme li nga xam ne nit bu toogee nit bu diis bu toogee ci dara noonu la lool di nooxee ba génnee benn son loolu mooy atit firi na ko sax mu ne waa waa ji mooy firi mu xaqiq bi mu ne fa inna atiita arrahli birraakibi innama yakunu li quwati ma fawqahu wa ajzihi an ixtimaalihi mu wax ci suuf ne atiit boo ko déggee moom lañu tudde ak aqtaab maanaam dara toog buñ ca toogee son ba muy génne loolu lañu tuddee atiit mu ne atiit nag bu amee ci ak tooguwaay la koy waral mooy diisaayu la toog ca kawam ak toogu googu na mu lottee pour àttan kooka loolu la ñuy tuddee apid dégg nga ibnu taymiya daati wax loolu indi xadis bi mu jeex toppal nag muhaqiq bi li muy wax muhaqiq bi ne xadis bi nag rawahu daarami fi raddihi ala mariis yi abu daawud itam sono na ko ci sunanam dégg nga daati indi sanad bi nga xam ne moom lañ ko soloo ci abu daawud yépp nga xam ne lépp boo ko toppee day jóge ci jubayr an muhammad ibni jubayr an mut'im an abihi an jaddihi qaala ata rasulullah sa sa arabiyun ata rasulallahi arabiyun noonu ñu topp ko demaat ci beneen safxa bi mu jëm nii sanq ñu ngi ci woon page deux cent quarante kon dañuy dem deux cent cinquante topp mu xaqiq bi Ibnu Taymiyya pare nañu wàcce na xadis bi gëm na ko jeex na ndax xadis bi wér na nag waa ji booy bi dafa waxoon ne xadis bi wérut léegi du suñ gëm-gëm léegi ñu topp mu xaqiq bi moom fu mu jëm ak bi mu xaqiq bi daal di nag indi xadis bi fi mu nekk yëpp mu ne ibnu abi asim indi na ko ci sunna dégg nga ibnu abi xuzayma indi na xadis bi ci kitaab tawxid laalakaay itam indi na ko ci charx sunna xam nga xadis baa ngay bëgg bari fu mu jaar bayhaqi indi na ko ci asma wa dégg nga baxawi indi na ko ci sarxu sunna nangam nangam sanad bii bii la àndal nangam nangam daal ne qultu mu xaqiq mooy wax mu ne waxtulifa fi sixati hada alxadisi sanadan wa matnan mu ne wuute nañ ci xadis bi wér naag wérul dëppoo wuñ de wuute nañ ci ci ndax xadis bi wér na wala wérut mu ne wa illatu isnaadihi inda man daafahu an anatu muhammad ibnu ishaq ña nga xam ne ñoo tadifal isnaadu xadis bi ñooñu la ñu sukkandiku mooy an anatu muhammad ibnu ishaq lañ wax ne mudallis la wa misluhu la yuxtaju bihi illa ida saraxa bi taxdis mudallis boobu nag bu waxul ne xaddasa nii kenn du ko jël bu ne an rek baaxul loolu la ñuy tuddee an ana mu wa illatu matnihi illab matn bi dafa am problème ci matn am problème ci sanad ña nga xam ne ñoo dàq xadis bi loolu lañu wax ñu ne illa ji ca matnu ba mooy lafzul atit bi nga xam ne moom lañ ci saxalal yàlla mu ne wa wa mimman aallahu bokk na ca ñi nga xam ne lottal nañ xadis bi alxaafidul munziri ci téere bi ñuy wax muxtasaru sunan abi daawud dégg nga foofa xaafisul mundiri wax na ca ne qaala abu bakrin il bazzaar wa wa hada al xadis la naalamuhu mu ne e, moom al mundiri mu ne qaala abu bakr al bazzaar nee na xadis bii daal xamuñu ko yurwa an nabi ñu koy askane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min wajhin min al wujuh ci benn anam illa min hada al wajh lu dul yoon bii rek mooy Jubayr xawma Muhammad ibn Mutaim ibn Jubayr ba ci jóge ci papaam dem ci maamam yoon woowu rek la am te loolu yëpp nag Muhammad ibn Ishaqa moom moo ko solo te Muhammad ibn Ishaqa mudallis la te waxul fii haddathani wa Muhammad ibn Ishaqa mudallisun wa ida qaala almudallisu an fulan wa lam yaqul haddathana aw sami'tu aw axbarana la yuxtaju bi xaditihi wa ila hada ashara albazar dégg nga maa anna ab maa anna bna ishaqa ida sarraha bi sama ixtulifa ixtalafa alxufaadu fi lixtijaaj bi xadis bi maanaam muhammad ibni ishaq mi nekk ci kii bi bu waxoon xaddasan yi sax dafa am problème ndax moom du mu dallis bu yemamaay yooyu waaw naka moog su fekkee ne waxul xaddasani lam yusarrex nee na qaala abu abu abul qasim dimashqi nee na xadis bi daal muhammad ibni ishaq moo ko wéetoo ibnu ishaq nag kenn du solo xadi kenn du uh, maanaam layoo xadisam ñu bari ci borom xam-xam yi dal nañ ci kawam maanaam uh, kii nañ ko lottal nañ ko wax nañ ne daif la zahabi itam ci kitaabul ulu wax na fa ne xadis bii daal garibun jiddan xadis bu yéemee ngi nii ibnu abi ishaq nag xujja la ci magazi buy nettali wàllu siira wan fara dee dégg nga mu ne walahu manakir wa ajaib wallahu aalam aqaala nabi hada wala am la maanaam yàlla xam nag ndax yonent lii moom àgg na yonent mos na ko waxam déet waaye daal yàlla moom laysa ka mislihi shay'un taqaddasat asmaa'uhu wala ilaha gayruhu mu ne atiit bi nga xam ne nag moom la ñu wax ne moo am loolu nag sifatun lirrahli kon dañuy as dañ koy askan maanaam ma ngi koy wutal aw lay mu ne dañ koy askan ci arash arash moo am sifatu atib waaye yàlla ëmu ko loola mooy nu mu koy fexe ba comprendre ko mu ne sax summa lafzul ati atiti lam lam yarit bihi nassun saabit maanaam atit ci boppam moo amul baatu atit moo amul fu mu ñëw fu wér ci ci xadis zahabi daati continuer nag wa qawluna fi hadihi al ahadith annana nu'minu bima sahha hadith yu mel nii nag ñun lañ cay wax lu wér ci yonent ba loolu la ñuy gëm lu wér ak la nga xam ne selef dëppoo nañ ci saxal ko waaye nag loo xam ne euh, wa amma ma fi isnaadihi maqaal loo xam ne nag maanaam wax dafa am ca sanat ga te muy mbiru pas-pas waxtalafa al ulamaau fi qabulihi wa tawilihi borom xam-xam yi wuute ca ndax des koy nangoom dees koy taawilam yu mel noonu fa innana la nataaradu lahu bi taqririn lool nag ñun duñ ko saxal bal narwihi bil jumla dañ koy dañ dañuy indi hadis bi rek noonu pour wane ne am na wax loolu wala hadis ñëw na ci loolu donte hadis ba wérul wanu bayyinu xaalahu ñu wane xaalu hadis bi ak ñi ko jam wa hada al bii nag dañ ko solo innama suqnaahu indi ko fii lima fihi mimma tawaatara min uluwillahi dafa am loo xam sax na ca yàlla te mooy yàlla dafa féete kaw mu ne loolu nag eh, eh, fawqa arshihi ne yàlla te aaya alxuraan yi moo méngoog loolu mooy ne yàlla ma nga ca kaw aras zahabi nee na loolu tax ma indi ko fi waaye xadis moom du xadis boo xam ne dégg nga moom Zahabi loolu la wax muhaqqiq bi mooy wax ba tey mu ne xam nga indi na mboolem borom yi nga xam ne jëm nañ xadis bi mu ñëw na ci ñi ko saxal wa mimman qaala bi sixati alxadis yi bokk na ci ñi nga xam ne wéral nañ xadis bi abu daawud ci sunanam abu daawud ci sunanam nee na xadis bi wér na donte ña nga xam ne ñoo tas six abu daawud Eh, ceytu ko ñoom ñoo toppaat xadis bi ba xam ne wérut waaye boroom mu xaqiq bi ma ngay wutal ibnu taymiya fu mu taxaw daldi ne xadis bi wér na xadis bi wér na bokk na ci ñi ko wax abu daawud kon waa ji doon wax ne xadis bi wérut ne déglu fii sëriñam yi ñu layalal ko xadis bi wutal ko fu mu taxaw ba mu dellu siwaat gëm ko ndax weddi na ko boo moytul mën naa génn ci diiney wahaabi yu ne yi dégg nga mu ne wa mimman qaala bi saxe abu daawud wax na ci xadis ba ne gannaaw bi mu indee xadisul atit daal di ne nag wal xadisu bi isnaadi ahmad ibni said huwa saxiix am na yeneen yoon wu mu ko wutal ne woo moom wu wér la wa waafaqahu alayhi jamaa minhum yaxya ibni main ali ibni almadini wa rawaahu jamaatun an ibni isxaaqa kama qaala ahmad aydan dégg nga wa kaana samau abdil ala wa ibnul musanna wa ibnu bashar min nusxatin waxida fi ma balagani yooyu yëpp ca lay ga la bokk maanaam wut weneen yoon woo xam ne xadis ba wéré na fa mu ne waqad saxaxa hada al xadisa aydan cheikhul islam ibnu taymiya tamit wéral na xadis bi mu xaqiq bi mooy wax ba tey mu ne wa bayyana anna hada al xadisa lahu shawahidu kasira ibnu taymiya def ne xadis même bu fekkee daif la am na ay shawahid yu ko mën a dooleel wa in kaana mastashhada bihi min shawahida fihi daafun mu xaqiq bi nee na doonte nag ibnu taymiya moom shawahid yam wëral xadis bi shawahid yooyu ci boppam dañoo daif ñoom itam illa annahu yajuuzu fi shawahidi maa laa yajuuzu fi l usul doonte nag shawahid moom dees na ci nangu loo xam ne dees ko nangu ci usul yi mu ne wa bayyana an hadha al haditha wa amthaalahu lam yazal mutadaawalan neen imtamee mi ngi leeral ne xadis bi ak xadis yu ni mel eh, borom xam-xam yi du ñu dañ di ko paasante di ko jokkalante xaalifan an saalifin ku dem rek jox ko sa morom walam yazal salaful ummati wa a'immatuha yarwuuna dalika riwayata musaddiqin bihi dégg nga salaful umma yëpp xadis bii dañ ko daan solo ibnu taymiyaay wax ba tey Eh, mu xaqib mooy wax ne Ibn Taymiya wax na waaye loolu Ibn Taymiya yaa ko wax ca téere ba ci Bayaan Talbiis Jahmiya mu ne salaful umma dañ daan riwaaya xadis bi di ko riwaaye riwaaya ku ko gëm ku koy dëggal sanat bi wér naag wérul yooyu yëpp gaa yi nekkuñ ci woon moom mu ne raddin bihi ala man xaalafahu min al jahmiya ñoom salaf dañ daan jël xadis bi di dal di ko dalee ci kaw ñi nga xam ne ñooy jahmiya yi loolu Ibn Taymiya def na ko mu xaq bi bi sukkandiku na boole ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wéral mu ne woo mi man rawaa wa mi man rawaahu ibnu xusayma fi kitaabu tawxid ibnu xusayma tamit indi na xadis bi ci kitaabu tawxid dégg nga te kitaabu tawxid kat ibnu ibnu xusayma daf caa sartonte na du indi lu dul ahadisu siqaat almuttasilati isnaad ibnu taymiya mooy wax ba tey mu ne bokk na ci ñi layoo xadis bi abu muhammad ibnu hazm wa huwa min aalami nnaasi bokk na ci borom xam yi gën a mag laa yu laa yu xallidu gayrahu du moroomam ibnu ibnu qayim ibnu ibnu moom ba ponkal wala yaxtaju illa bi ma sabata indahu sixatuhu lu dul loo xam ne wér na ci moom ne lii lu wér la yooyu yëpp ibnu taymiya ngi koy taqale ngir wane ne xadis bi wér na coono gii mu ci sonn nag benn xale warul taxaw fële naan ko xadis bi wéru teg du te am na ñeneen ibnu hazm ak ñeneen ak ñeneen tudd na ci ñu bëri wa qad intasara ibnul qayim lil qawli bi sabutihi sanadan wa matnan ibnu mu ne ibnul qayim maanaam mu xaq bi mooy wax mu ne ibnul qayim nag euh, ma ngay dimbali baayam ba sëriñam ba ibnu taymiya ci wax ne xadis bi lu wér la ci sanad bi ak ci matn bi yëpp wa basata alqawla fi munaqashatihi wa bayyana anna kathiran min al ulamai wasaqu muhammad ibnu ishaqa wa anna xadisahu saxixun mu ne ibnu ibnu ibnu ibnul qayim wax ne muhammad ibnu isaaq mi ñu doon wax mu dallis la yu mel noonu yooyu am na ay borom xam-xam yoo xam ne tawsiq nañ ko moom ibnu abi ibnu isaaqa wax ne xadisam wér na ku ci mel ne kan mu ne ku ci mel ne ibnul madini ak shuba ak ibnu abi shayba dégg nga mu ne nag ñàkk gim ñàkk wax ibnu qayim mooy wax ba tey mu ne ñàkk gim ñàkk wax ne xaddasa nii nag la mu saref bi samaa ci yaqub ibnu utba loolu nag fala yuxrijul xadisa an kawnihi xasanan loolu nag buñ ne du saxiix tamit dañ naan xasan la rek ngir ñàkk gim ñàkk wax ne xaddasani fa innahu qad laqiya yaquba wa samia minhu wa fi saxiixi qitaatun min al ixtijaaji bi an anati al mudallisi ka abi indi ay yeneen lay nag amma annahu ixtalafa uxtulifa fi lafdihi fa baaduhum qaala la yaitu wa baaduhum lam yudkar lafdatan bihi fa laysa fi hada ixtilaafun yujibu radd al xadis naan xadis bi ñii la ñëweek ñëwewul nii ak lafz bi amu ceeg yooyu yooyu du tax ñu dàq xadis bi ibnu qayim mooy wax ba tey fa ida zaada baadul xuffaas lafzatan lam yanfiha gayruhu waaw kenn ci xuffaas yi bu yokkee benn baat baat boobu su fekkee na xaafis yi ñoom ñoo ko yo ñoom ci ñoom la jóge rek maanaam ci seen yoon la jóge te ña kenn du ci daif kon loola kenn mënu ko dàq dégg nga loola Eh, yëpp ibnu te ibnu ibnul qayim wax na ko kon yii yëpp dañ koo indi pour wane ne xadis bi lu wér la te waa ji kat dafa taxawoon fi daan ne xadis bi wérul ñu waaw man gàgguma ko moom xadis bu yàqu la moom bu taxawee nee ñi ko wéral rek mooy ñi am pas-pas boobu ibnu taymiya ak ibnul qayim ak yu ni mel léegi nag waa ji waxoon ne xadis bi ñoom du seen gëm-gëm na tuub delluwaat gannaaw ndax muxaqiq bi moom dafay wut nu muy saxalee xadis bi léegi nag pour wan ne ibnu ibnul moom eh, ibnu abdil wahab da doon toppandoo rek maanaam maanaam boo xoolee fii eh, eh, ba waay ba ibnu taymiya indi xadis bi daf ne wa wa rawaa haada alxadisa wa rawaa haada ndono wa hada alhaditu qad rawahu alimamu ahmad fi kitaabihi fi kitaabi raddi ala aljahmiya mu ne imam ahmad soloona hadis bi ci téere bu ñuy wax ar raddu ala aljahmiya téere moom imam ahmad loolu nag muhaqiq bi daan ne ar raddu ala aljahmiya bu ahmad moom ar raddu ala aljahmiya wa zanadiqa la tudd loola nag hadis ba nekku fi kon nekkul ci musnad nekkul ci beneen téeréem bi moom ahmad ma nekk nekk nag ca musnadu daarami léegi nag muhammad ibn abi wahab daal jëlaat wax jooj daan ne rawaawu ahmad xadis bi ahmad riwaayé na ko te waxul sax benn téere moom waaye téere bu mu mënti wax rek ahmad solowu ko ca moom nga xam moom daa dégg sëriñam wax rek mu daati wax vérifié wul de xamul sax fu téere ba nekk waaw waa ji ne téere wax ji moom xadis bi moom ci suna ci daara mii la nekk daara mi Ousmane ibn Saïd ci radd bi mu radd jeex mi yeeyi foofa la nekk kon xadis bi moom ña ca taxaw wéeral ko bari nañ lool ci seen wàll ibnu taymiya ibnul qayim mohamad ñooñ duñ ko wéral wéraluñ ko yem ci de dañoo wëri ñeneen ñu ko wéral kii nee na ibnu ma wéral na ko nee na ibnu xusayma du indi ci téeram lu dul lu wér ma ngay wuti ay sukkandikukaay ibnu xasm wéral na ko ibnu xasm moom ponkal la bu waxee rek wax ji wér na nangam ak nangam mhm. mu xaqiq bi nag lii la doon indi pour wane ne li im tey mi waxtim bu ko kenn jël rek dàq ko noonu waaye loolu lu am dëgër laay la